jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi safo jàmm ji info di leen jaajëfalaat saa su ne ni ngeen di ànd ak suñuy programme waaye tam li euh, ñu leen koy waxee saa su ne di leen wax rek ngeen wéy di abon ci compte youtube bu jàmm ji info waaye tam euh, di bës ci cloche de notification bu tax vidéo bu dugg ngeen koy am en temps réel euh, tey nag ñu dellu si waat seen jotaay noo ko jàngatee seen jotaay noo ko jàngatee nag mbokk yi mel ni tey nag euh, duñu wet ci plateau bi tey ñu am fi gan Amadou Diop euh, Carter euh, parti doxal Sénégal moom la ñu fas yéene rek amal jotaay duñ ci sori dañ koy daal di bàyyi kàddu gi mu daal di nuyoo bu ko defee ñu mën a dellusiwaat si jotaay bi léegi Amadou jóop Carter nuyu nañ la beneen yoon. fay nañ la sëñ Mountakha ziare naa la ziare mbépp euh, téléspectateur ak abonné yi nga xam ne ñoo nekk ci chaîne jàmm ji info mm-hmm. di leen ziare bu baax a baax di leen ndokkeel di leen ñaanal aussi jàmm mm-hmm. comme que chaîne jàmm ji lañ nekk yaakaar naa ni incha allah lu bés ni ki tey dinañ yàgg di saxee di waxtaanee ci jàmm di dox ci jàmm ngir mm-hmm. Sénégal nekk ci jàmm incha allah am na solo Amadou Diop Carter mu mel ni yoon bi neexul woon tey lool euh, li ko waral tamit euh, gis nañu obstacle bi waaye teewul euh, teew nga tey ci jotaay bi lee mu mel ni dañuy njëkkee tey ci li nga xamante ni yaakaar naa ni tey réew mi ak bi di réew tam ñoo ngi dund li nga xamante ni tey moment bi ñuy wax ak yéen tey muy Ousmane Sonko mi nga xamante ne nag face au doyen des juges mu mel ni tey mu ngi jàkkaarloo ak juge bi ci boppam tey nan ka jàngatee tey situation bi taxawaay bi nga xamante ni tey ci Ousmane Sonko ak rawatina tamit population bi ginnaaw si Ousmane Sonko tamit démb teel naa génni xamal ni euh, moom dafay wuyu rek li nga xamante rek moo di euh, taxawaay bi nga xam ne woolu nañ ko fa mu war leen dem dem déglu ji. Mm-hmm. waaye nag euh, li mu wax àndandoom yeeg naataangoom yeeg soppe yi. waaye mm-hmm. tamit ñu bokk ak parti moom. Mm-hmm. nee na leen nag gunge bi moom jaru ko. tey naka nga gis xar xar kanam gi dafa mel ni Ousmane Sonko la mu waxoon moment bi fi ñuy wax nii nag loolu la ñu gisagum. waaw déjà pour tàmbali dama lay wax ne la que Sénégal dëkku jàmm la. jàmm rek moo fi xaj. Mhm. dëgg la ay yenn saay mu yeewu lu ne mën na fi xew. Mhm. waaye lépp ci jàmm lay mujj. Mhm. te it suñu maam yu baax yi suñu mag yu baax yi dañ ko fi liggéey. liggéey nañ ko fi liggéey goo xamante ne ñun ñi di ndaw ñi. suuxat nañ ñu ci su nekk ci jàmm rek lañuy ñuy dox. macha allah waaye fépp fu jàmm nekk. dëgg dafay am yoon. te tey nag dëgg moo woote. dëgg moo woote ba tax na kii di Ousmane Sonko daal di fas yéene dem wuyu ji yoon. ngir lan ñu mën a leeral lépp non seulement leeral waaye aussi seetal boppam moom mii ci wàllu boppam waaye li ci gën a yéeme mooy dispositif impressionnant bi nga xamante ne état daal dina koy teg ndax xoxatal Ousmane Sonko moo tax mu def ko wala ndax aar ko moo tax mu def ko xëy na danañ ci ñëwaat mm-hmm. waaye li wóor ba wóor mooy ne que ndigal yi nga xam ne jot na ko joxe mm-hmm. pour ndawam yi ah ba fi ne nii kat gis nañ ni kat ñoom respecté nañ ko respecté nañ moo d'ordre bi mhm. mais am nañ yaakaar ni incha allah que jàmm ji nga xamante ne moo fi amagum mhm. dana sax ba wéy ba incha allah lépp mën a leer ci coowalu Ousmane Sonko boobu. d'accord Amadou ba léegi rek euh, mu nekk dossier boo xam ni euh, tey quoi qu'on puisse dire mën nañu wax ni euh, lu métti ci Adji sar la waaye lu métti tamit ci Ousmane Sonko bu ñuy wax loolu mooy mbir mi dafa yàgg. yàgg na eh, te aussi tamit dégg nañ fi ay audio yoo xamante ni fuité na loolu yëpp tam eh, nekk na loo xamante ni ci ñoom ñaar ñëpp dafay xaw a posé ñoom hmm. eh, benn benn pression dafa jot vraiment tey mbir yi am fu mu tegu rek benn yoon nit ñi war a mën a am jàmm hmm. tey bu ñu xoolee tamit li nga wax ci dispositif yi nga gis ni tey gis nañ ko hmm. ci réew mi tey check point yi ñu fi teg ak yu demee li ni mel lan la ñuy wax ndax ar kaaraange réew mi la wala sax situation peuple bi la ndax da ngay gis commerçant y ñoom it am na ñoo xamante sax dama ñu dem jaay ndax ñu ngi sóoraale que ni seen xel dalul euh, tey bu ñu demee ba toll réew mi dem ba toll foofu tey ban taxawaay lañu war a gën a mën a amaat ndax lii yaakaar naa ne xar kanam gi ñuy gis nii mosuñu koo gis ci Sénégal. dëgg la mais tey euh, sëñ taxaa dama lay fàttali benn mbir. Mhm. tey ci yoon bésu tiis la. Mhm. ndaxte tey daf ñuy fàttaliku événement wu 3 mars 2021. Mhm. daf ñuy fàttaliku ay événement yoo xamante ne ay doomi Sénégal ñoo ci ñàkk seen bakkan. dafa nekk événement boo xamante ne du événement wu bànneex dëgg la dëgg moo jug. yoon moo woote. Mm-hmm. waaye boo xoolee ba xool daf ñuy fàttali suñu ndaw yi nga xamante ne ñàkk nañ ci seen bakkan. ci mbirum Adji Sarr Ousmane Sonko. Ousmane Sonko doomi Sénégal la. Mm-hmm. Adji Sarr doomi Sénégal la ñoom ñaar ñëpp yoon moo leen féete kaw. Mm-hmm. saa su nekk bu fekkente ne daf nañ lu dëppuwul ak yoon yoon mun na dal seen kaw. yoon nag bi mu demee ba gis ne kat mbir li am na ay bakkan yu turoot mu ne nag naa teey naa ko jàngat. jël sama temps bi mu war yépp ngir xool ba xam dossier bi fan la war a mujjee. ndax li ñuy wax am na ndax li ñuy wax amul sunu borom kese moo xam ak juge bi. d'accord moo tax mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr dama ci invité d'ailleurs sénégalais yi ne leen. Mhm. nañ ci màndu nañ ci tey comme que fi mu ne nii yoon yeewu na. Mhm. jug na. moo ngi ak yoonam dañ ko bàyyi ak yoonam. mu mottali dossier bi de A à Z. fu mu mujjee rek ñu xam ne incha allah ko foofu la dëgg féetee. Mm, d' accord euh, balaa ñuy tëj foofu euh, euh, ginnaaw ba nga xamante ni dem na tribunal ànd ak avocat mi itam dëglu nañ ko. Mm-hmm. on dirait que nag moment boobu temps ba ko a dëglu mën nañu wax ni daanaka dëglu nañ ko ba pare mu waroon mën a dellu comme na ma ko waxee dafa nee ma bu ma dëgloo pare dama war a delluwaat sama kër. Mm-hmm. mu mel ni tamit doxal boobu sax boobu ba léegi ñu ngi ci procédure yoon boobu. Mm-hmm. waaye li ñu jaaxal nga xamante ni xëy na ci parcours nemmeeku dox nemmeeku boobu mu doon def euh, garde corps itam jaamaarloo yi nga xamante amoon na fa foo fekk diwaanu mbuur te ci kii foofu ci boppam euh, mais garde corps yi ñuy interpellé téye leen moment bii mm-hmm. euh, daanaka Ousmane Sonko ba fi ñu doon wax mm-hmm. xamaguñ fan lay mujjee waaye li mu waxoon ni tànk baw ñu leen du dellu ci information ñu jotagum mm-hmm. mais loolu nu ko gisee parce que garde corps am yi ñëw nañ garde garde di ko garde indi ko ba tribunal aussi bàyyi nañ leen ñu dugg mais moment boobu à l'heure là ñu ñu téye leen xamaguñ nag dëgg la xëy na ci problème bële la. Mhm. mais le problème en est-ce que moment bi ni mu demee nii. Mhm. Euh, xawul tey xel ak jaxase askan wi tuuti. Mhm. waaw xam nga nag sëñ taxa gis nga fonctionnement wu appareil état dafa doy waar. doy na waar doy waar boo xamante ne ak jamono yi ñu toll nii doole bi réseaux sociaux yi am façon xeetu xibaar bu nekk mën nga ko jot man suñu borom def na jotuma fekkee audition Ousmane Sonko. fekkewu ma ko fekkewu ma aussi fi ñuy jàppee ay garde du corps wóoru ma ne tamit que garde corps yi bi ñu leen di jàpp dañ leen notifier que mbirum ciki bi moo tax ñu jàpp leen xëy na peut-être que dispositif yi nga xamante ne moom la tribunal mettre en place mm-hmm. garde corps yi waru leen fa fekk moo tax xëy na ñu retirer leen nit ñi yaakaar ne dañ leen jàpp loolu yëpp mën na am mm-hmm. waaye bu fekkente ne dafa sunu borom dafa def ñu téye leen ci mbirum coowu ci kii li xëy na boobaa dafa am ay incidents yu doy waar yoo xamante ne jot na ci am ba tax ñu jàpp leen. waaye lii yoon comme que fi mu ne nii ba fi mu ne nii waxtu bii mooy waxtaan ak yow. Mm-hmm. jàmm am na ci réew mi. lépp dal na. Mhm. damay ñaan président de la république ak ministre de l' intérieur ministre de la justice jàmm jooju nañ ko wéyal buñ fi yee fitna ay jàpp garde corps Ousmane Sonko bàyyi garde corps Ousmane Sonko amul lu muy change ci situation bi. Mhm. le principal concerné Ousmane Sonko la dañ ko déglu ak dal ak tey lépp lu ci yoon war a dogal mu daal di koy dogal incha allah ñu fekkee lépp ci jàmm mottali lépp ci jàmm. tabarkàlla jërëjëf euh, Amadou Diop Carter ci mënuloon ñàkk ci bunt boobu ci Ousmane Sonko comme euh, les informations yoo xamante ni sax euh, danañ ko jot daanaka ci ay télévision plateforme télévision yu mag daanaka bu ñu joxee annonce boobu donc mën nañu waxtaanee en tant que sax amaana audition bi li ci bëri bëri ñun fekkee wuñ li ni mel waaye itam. Mm-hmm. à travers tamit ni ñu koy waxee plateforme yi itam. Mm-hmm. daanaka buñ ci jotee itam loolu la ñu mën a waxtaanee ba xam. Mm-hmm. fan la wan wan di mu dee gëtëm gëtëm. parce que tam benn moment affaire li ci am lépp ci kanam tuuti lépp dina leer. Euh, Amadou Diop Carter ñu daal di ñëw nag euh, ci sa taxawaay tuuti parce que tam. Mhm. Euh, ngay ndaw nekk ci yoon. Mhm. Amadou Diop Carter parti doxal Sénégal. Mhm. mais toujours Carter boobu ñu dàkkantale sa tur aussi balaa ñuy dugg ci parti doxal Sénégal moom Carter bi lu ko waral. <laughs> bon Carter bi ñaari mbir ñoo ko waral. benn bi <coughs> mooy sama turandoo ki ñu ma tuddee. mu ngi tuddoon Amadou Diop Carter. d'accord Carter boobu nag. cosaanam mu ngi bàyyeekoo ci école Carter bi nekk Castor. ok te école Carter mu ngi koy sanc en vers les années 60 70 année bi nga xamante ne ci le président Jimmy Carter bu États-Unis di ñëw Sénégal. d'accord année boobu lay créer école bi ñu toftalee ko Carter. beneen bi tamit Carter bi ñu ngi koy sanc comme que tour américain la. Mm-hmm. sunu borom dafa def man nag jikko américain laa yor. maanaam liggéey rek laa xam. non ba nga ma joxee ba nga ma joxee heure man jàppoon naa ne sax heure bi est-ce que fàtte woo heure bi mais à l'heure juste da nga ma woo ma ne non kii moom kaana dafa mel moo tax quartier bi xaw ma jaaxal. <laughs> mu ngi noonu mu ngi noonu. waxtu moom dañ ko fonk. liggéey dañ ko fonk te loolu yi damay ñaan sénégalais yi. Mhm. ñu fonk ko. ndaxte gis nga sunu borom bu la xéwalee nga am liggéey. Mm-hmm. am tuuti looy suturloo. Mm-hmm. da nga koy fonk da nga koy jàpp jàpp ko say téeméeri loxo say fukki loxo ndaxte say junni morom. Mm-hmm. ñoo ngi ko bëgg am mënuñu ko am. d'accord mu ngi noonu. am na solo euh, ñu ñëw ci parti doxal Sénégal ndax ñu bari tam euh, euh, tur bi jaaxal na leen ku ci nekk nag yor nga nag Sénégal fi nga ko bëgg a yóbbu ku ci nekk tuddee nga sa tur. tey nga ñëw beru yow dong nga seppeeku ne parti doxal Sénégal. lu waral parti doxal Sénégal doxal Sénégal lan moo ko waral Sénégal dafa doxal wala Sénégal doxul. Ah, Sénégal doxul al muntaxa. Ah, lu lu tax lu tax doxul ci fànn yëpp muy ci jàng bi. dafa sooxe paj bi dafa feebar li nga xamante ne mooy dem beeg dikk bi lépp naxasaay yow sax gisal nga ko sa bopp. ak mm-hmm. travaux yi nga xamante ne am nañ ci dëkk bi napp bi. maara day taali fi mu ne nii jën mënatoo ko gis ci Sénégal ndaw ñi liggéey mënatuñ ko am ba sànk rek ba may ñëw maa ngi gis ci yoon bi ñu ngi sonal ndaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy dawal ay wax gaynde ay euh, Allo Dakar ay jakartaay dañu leen sonal sonal ba ndaw ñi non seulement joxuñ leen liggéey waaye mm-hmm. as bi ñuy suturloo fàtt nañ leen ci boo xoolee mbirum climat des affaires fi mu ne nii dafa doy waar mm-hmm. mënatoo am confiance ci benn investisseur amul benn doomu aadama boo xamante ne sa xel dina dal ci moom ndax ne nanga naan ah sama alal kat su ma ko defee Sénégal mbaa du ma ñàkk mbaa du ma perte kon nag taxaa mm-hmm. nañ waxante dëkk Sénégal fi mu ne nii doxul. mais mais ak li nga gis yëpp parce que yaa yaa ngi teg say gët euh, tey fi nga romb gis nga ne foofu ca euh, ca jam ñaajo mm-hmm. euh, gis nga li fa président taxawal mm-hmm. gis nga tam ba ngay ñëw gis nga ne travaux yi mm-hmm. Amadou Diop gis nga ne travaux yi tabarkal la dëkk bi mu ngi ubbeeku yow boo taxee ne Sénégal doxul moment bi dafa mel ni kon bu ñu dégg sa wax Sénégal dafa taxaw boog nga bëgg a wax Sénégal dafa taxaw Sénégal dafa taxaw bu ma koy wax ci kàddu gu gën a yéeme sax xam nga bi ñu may yaa ngi wax léegi day ay infrastructure yu ama am solo yu président de la République jot xam nga Sénégal doxul ak defuñ fi dara du benn. d'accord boo xoolee Sénégal doxul déjà dama lay jox exemple bu ndaw. Mhm. stade maître Abdoulaye Wade. ñaata match lañ ci joué léegi ñu ko tijjee. Ah, mais mais mais dafa fekk ni pro euh, euh, ni mu war a doxee rek. moo tax doxul kon d'accord nga ne doxul. mais mais compétition woo xam nga nag euh, xam xam nga xamante ni. Mhm. c'est c'est important ñu leeral ko. Mhm. mais dafa am loo xamante ni jamono comme Sénégal fi ñu toll. Mhm. dafa loo xamante ni naan. place place de luxe luxe leen yoon indi leen tey war nañu mën a leen yóbbu Amadou Bari ñu dem fubali fa. mais stade bi dafa nekk stade boo xamante nag yow tam dernière génération la. quand même. ñu jugee rek euh, yóbbu fa gaañi. dëgg la mais stade bi kan lañ ko defal. mais mais président Wade. non kan lañ ko defal. mais peuple bi la. mais sénégalais yee ko moom donc. amul xàjj ak seen. amul catégorie minime amul li war kañ mooy ngir ñu mën a doxal Sénégal nañ defar tàggat jaram bu baax a baax. sport yëpp nag bu munti doon. mais xanaa muy làmb mais xanaa gisoo stade yi tamit. stade yëpp ñu ngi leen di defaraat maa ngi ñëw maa ngi ñëw ci stade yi ndax mbir mi du stade. bi mbir mi. continue la dëgg la parce que stade yi boo xoolee sax dañuy defaraat. donc ah. amoon nañu ay stade ah. mais sport bi war nañ ko mën a gunge ba nga xamante ne tey jii xëy suba teel dem di jàngi l'école say waajur def amuloo ay moyens ngir mën a àggali sa école war nga mën a xam ne kat su ma demee ci club sàngam mën naa fa football. te muy sama bëgg-bëgg en même temps jàngaale. kon da nga xeeb moment bi li li sport bi di def moment bi nii. non baax na mais doyul. doyul baax na waaye doyul. war nañ mën a gën a. góorgóorlu ci mbirum sport bi surtout ndaw ñi ndaxte aussi euh, lenn dinaa la ko xamal sëñ Mountakha gis nga ndaw ñi bu ñu leen bëggee canaliser dañ leen di fekk ci liñ bëgg te ndaw ñi liñ bëgg mooy sport mooy sport voilà d' accord euh, jërëjëf Amadou Diop Carter euh, mu muy lu am solo parti doxal Sénégal ba léegi ñu taxaw foofu hmm. tey moment bi nga koy créer yow sa bopp na wala dafa am ñu nekk sa ginnaaw Euh, ou bien tam bëgg nañoo xam ak lan moo la inspiré lu tur bi parce que tur bi tamit dafa nekk loo xam ne xëy na tëboo tëb rek jug dëgg la xëy na doxal Sénégal nga ne dox Sénégal doxul comme ni nga ko waxee yow hmm. euh, euh, tey ba nga koy taxawal yow dong yaa ko taxawal wala dafa am ñeneen ñoo xam ne da nga ànd ak ñoom ci ci parti bi waaw doxal Sénégal ni mu juddoo dafa yéeme comme li ñuy wax suñu borom lépp lu mu nar a barkeel buy ñëw dalay bett doxal Sénégal dama toog ak samay xarit samay nawle samay am di jàmm ñu toog di waxtaan ñu ne fi mu ni nii bu fi indoon beneen xeetu politique bu bokkul ak digle bu bokkul ak fen bu bokkul ak manipulation bu bokkul ak wax lu dul dëkk est-ce que sénégalais yi duñu ci topp mu ne ma ci naka ma ne ko Sénégal li muy rëy rëy yépp boo xoolee nous sommes presque à dix-huit millions d'habitants ci dix-huit millions d'habitants yooyu yépp ñi nga xamante ne ñoo ci am carte électeur mun a voter à peu près six millions cinq cent lañ si six millions cinq cent yooyu yëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci dem voté du jour élection duñ mot trois millions délecteurs électeurs. ci trois millions d' électeurs yëpp ñi nga xamante ne ñoo ci voté Macky Sall duñu mot deux millions. Mm-hmm. léegi nag ñun ñu ne kat Sénégal dix huit millions d' habitants la. ñi fal Macky Sall deux millions d' habitants lañ mais ana seize millions d' habitants yi ñu politique ñoru leen. Mm-hmm. ñooñu. ay digle na ñoru leen ñooñu ay naxaate ñoru leen li la ñor mooy dëgg te loolu nag ca lañ sancee suñu parti te muy dëgg mhm. lu dul dëgg ñoru ñu ci doxal Sénégal d'accord te képp koo xam ne dëgg moo la tax a jóg bismillah dalal nañ la jàmm dalal nañ la jàmm euh, tey bu ñu waxee ne parti euh, tey euh, législative yi local yi ñoo ngi jëm ci présidentielle bi 2024 parti ba ngeen ko sanc ak léegi ban ñaata ñaata jamono la tolloon waaw ñu ngi ko sanc ci atub 2018 ba fi mu ne nii am na ñeenti at. d'accord ñeenti at ngi nii ñu sanc parti bi di doxal Sénégal. d'accord léegi da dem élection. incha allah bu neexee suñu borom. Euh, fan yële passé sax ñu ngi ma ci doon interpellé nee ma comme que yow. gisuñu leen est-ce que teelul. Euh, déedéet teelul. teelul teelul même bu dee suñu borom def na que li ñuy séentu amuñu ko. li ci am solo rek moo ñu bokk ci ndaxte bépp parti politique mm-hmm. ñun. dañoo juddu ngir soppi mbir yi. est-ce que nag jot ngeen natt seen bopp ko si côté parrainage yi ba xool yéen li ngeen def convaincre convaincre ngeen sénégalais ou pas. parce que euh, tam loolu c'est important. dinañ con euh, dinañ convaincre sénégalais yi ma expliquer la ci firnde bu ndaw. Ah. gis nga Sénégal fi mu ne nii euh, du politiciens yi sénégalais yi de manière générale. Mhm. du politiciens yi ñoo leen tax jóg. du waxkat yi ñoo leen tax jóg jëfkat yi ñoo leen tax jóg. ñun doxal Sénégal dañuy jëf te xaaruñu poste électif ñu ngi defar. ñu ngi raxas ñu ngi nettoyer ñu ngi yeesalaat te loolu lépp amuñu poste électif du maire du ministre du député ak suñuy moyen bopp donc ñu dañoo gëm ne as bi ñu suñu borom suturaal mhm. kenn ku nekk war na mën a jàppale moromam ñu jéem a avancer jéem a doxal dëkk bi waaye duñu xaar kat ñu def ñu ministre ñu ñëw di digle loo xamante ne amul mhm. wala ñu ñëw di wax loo xamante ne amul loolu nag tax na ñu xam ne mhm. ñun kat am nañ benn carte électorale bu dëgër implanté wu fépp ci Sénégal. Mhm. ba tax ni incha allah yàggatul dara fii ak ay weer yu néew. di nga gis ne bu baax que parti bi. mu ngi yëngatu bu baax a baax. te que ñu ngi ci yoonu élection présidentielle 2024. incha allah d' accord mais mais fi ngeen jëm nag euh, du caaxaan de parce que tam <laughs> daj Sénégal daj Sénégal nekk loo xam ne lu ndaw la parce que moment bi tam euh, presque euh, li ñu desee ci 2024 bareetul mais moment bi tam nañ leen ko waxee tam fañ leen war a gisee yëpp est ce que egg ngeen fa tamit xam nga élection présidentielle dafa am lu mu laaj aussi tam Amadou. waaw dëgg la gis nga wax naa la ko sànq ci samay tàmbali kàddu nee naa la sëñ Mountakha dëgg mooy jiitu dëgg mooy mujj amuñ alal guñ jox sénégalais yi amuñ ay digle yu yuñ jox sénégalais yi li ñuy xamal sénégalais yi moo ni ko situation bii moo fi nekk. Mhm. yow gis nga ko man gis naa ko keneen gis na ko li ko mën a soppi nag. Mhm. faw ñu toog ñu waxtaanee ko. d'accord buñ demee ba waxtaanee li ko mën a soppi ñu ne kat nii lañ koy tëralee. Mhm. ñu defandoo ko. buñ ko tëralee noonu mu wóor na la que yow fekkee nga. Massamba fekkee ne Mademba fekkee ne mais bu ëllëgee bu bilan di amee kan la ñuy wax bilan kan la suñu bilan lay doon. ok ñëpp loolu mooy idéologie doxal Sénégal. d' accord ndax xaaruñu ci yéen intercoalition ngeen bëgg ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen wékku fenn pour pour mën a dem parce que tam moment bi tam <laughs> léeg-léeg dem ba kii leen ngeen yëg dem wékkuwaat fenn fa peut être yéen loolu euh, xaaru leen ko. waaw dëgg la nag parce que souvent euh, nit ñi ñu ngi koy wax yenn saa yi sax ñu ma naan kan moo nekk sa ginnaaw kan moo lay dooleel. may dalal seen xel ku dul sunu borom subxanahu wa taala nekkul sunu ginnaaw ñun sénégalais dañoo gëm ni surtout ñun ndaw ñi. Mhm. nañu ànd nekk benn. fi suñu mag ñeeg suñu maam yeeg suñu papa yi lajjee. Mhm. maanaam ci ñàkk diisoo ci ñàkk waxtaan ci ñàkk woor ma yenn saa yi ndaxte gis nañ ko politique léegi dafa ànd ak violence. Mhm. ñun dañuy ànd ak dal. d'accord tey waxtaani lépp ngir incha ñu xool nu ñuy demee mais nag euh, jàppal ne que bu doon am coalition doxal Sénégal lay doon. te mhm. incha allah ñooy demal suñu bopp présidentiel. kon daal yéenay demal seen bopp. ñooy demal parce que nag li bañ moom Sénégal moom vaar bi moom gars yi toujours dañuy teg di xaar vaar <laughs> jàmm ji info ah. dëgg la ñu ngi ma koy wax sax jamono lay passé ne ma ah. danañ la fi waat mais di ngir dalal sa xel. d'accord yaakaaruma. Mhm. doxal Sénégal ak posture bi ñu am. ndaxte bu doon rallier kase la. Mhm. rallier woon nañ 2019. d'accord c'est bu doon rallier rallier nañ ci élection législative wala locale yi passé. mais bu dee jotuñ ci def boobu yëpp maanaam ñun dañoo am suñu objectif suñu objectif 2024 la bu neexee suñu borom ñu wut Macky Sall ci palais bi. ah ngeen wuti Macky Sall ci. waaw kon yéen yaakaar ne troisième mandat day am ba tax moo tax yéen fi nga fi nga waxee moom day na war de. Euh, Mountakha troisième mandat wax caaxaan ah bon waaw loolu nga yaakaar. troisième mandat mais xoolal 2019. ba léegi mais mais mais li ma jaaxal moom ba léegi li ma jaaxal ba léegi Amadou Diop franchement yéen yéen en tant que opposition yéen yéen ci opposition bi ngeen nekk. Mm-hmm. Eh, boobu ba léegi saa waay euh, euh, euh, président waxul. Mm-hmm. waxul waaw waxagul déet. Mm-hmm. mais gaa yi ba léegi dañoo jàpp ne rek moom dafa visé ci troisième mandat lan la noonu. tekk tekkaaram bee leen jaaxal wala lan la. du du tekk tekkaaral stratégie de communication la. président bu nee waaw dëkk bi yëngatu. bu nee alliés yi ko wër yëpp woon ko ginnaaw te fi mu ne nii jeu de dupe la. bu nee nii wii nii non maanaam fi mu ne nii dama leen sant ngeen liggéey liggéey leen li ma leen sant. waxtu wax bu jotee dinaa wax. stratégie la aussi pour mën a euh, divertir sénégalais yi. Mhm. mën a ngir nit ñi mën a tal leneen lu dul mbirum troisième mandat boo xoolee depuis 2019 directeurs généraux yi liggéeyuñu ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñoom lañ jox yenn euh, secteurs yi gën a sensible ci état bi mhm. liggéeyuñu. lu leen neex la ñuy def ñu ngi toog seen bureau ba yenn waxtu yi dëkk bi doxul dëkk bi avancé wul nit ñaa ngi jooytu muy ndox bi muy mbirum courant bërki dem rek gis nga coow li am mbirum euh, Senelec ak euh, système Woyofal bi nga xamante ne paralysé na dëkk bi yëpp. loolu yëpp lan moo ko indi parce que tout simplement que. li ñuy lijjanti mooy 2024 li kon daal yow gëmoo ko. gëwuma ko kon ko gëwuma mbirum troisième mandat. d' accord euh, Amadou Diop Carter euh, moo jotaay. yeneen jotaay yi gën a am solo. Euh, waaye nag moom nee na moom xalaatu ñu yóbbu ko VAR ah. yéen yéen a koy jugé nag fu mu nekk seen jotaay noo ko jàngate parce que moom nee moom daanaka ñoom seen parti dañuy demal seen bopp ndax bu ñu naroon rallier yéen ko wax kon dem ngeen depuis 2019. wallaahi ah kon nag moyens yi tam tamit euh, élection moom la la may laaj dafa bari léegi dafa laaj Amadou Diop. dëgg la élection. laaj na laaj na lu bëri. waaye lu mu bëri bëri bëri am na lu ko ëpp. d'accord muy doomu aadama. te bakken moo gën a foor lépp loo gis ci kaw suuf mhm. te am nañ yaakaar sunu borom bi nga xamante ne moom mooy maye te mhm. mooy joxe nguur dañu ñu taxaw mhm. gunge ñu ba incha allah yombalal ñu yoon bi kon pale ngeen jëm de dafa ni ma dégg soobee sunu borom yow kañ moom na incha allah waaw reer gi may njëkk a reerandoo gars yi ci bokk bu soobee sunu borom <laughs> tabarkàlla jërëjëf Amadou Diop Karbet bég nañu kontaan nañu parti doxal Sénégal euh, looy tàggatoo mbokku téléspectateurs yi vraiment ñuy am mbégte nag bu baax a baax ci yow ak euh, disponibilité ak yombal gi ñuy yombal jotaay bi euh, looy tàggatoo li may tàggatoo mooy jàmm. Uh-huh. fi ma tàmbalee Sénégal dëkku jàmm la. Mm-hmm. policiers yi suñuy mbokk lañ. médecins yi suñuy mbokk lañ. politiciens yi suñuy mbokk lañ. waruñ ñoo féewale. féewale ci ay kàddu. Mm. ci ay mbirum waaso wala ci ay mbirum xeet. Mm. ba ci diine gi nga xamante ne léegi dañ ko dugal ci politique bi waxtu bu ñu jëlee diine dugal ko ci politique politique nekk na lu salte te mën na yee fitna sunu borom. rëbb na képp ku yee fitna. te dëkk bi jàmm rek moo fi war a am. ay waru fi am may ñaan sénégalais yépp kenn ku si nekk na lu wóor ni lépp loo liggéey ci kaw suuf bés dana ñëw nga netti lépp sa borom. Mm-hmm. jàkkaarloog sunu borom wax nga li nga xamante ne moom nga fi doon liggéey ba tax na leneen loo fi liggéey lu dul jàmm wallaay lu dul jàmm jàmm ko gën. may sant di leen gërëm. Mhm. di gërëm bu baax sëñ Mountakha ci invitation bi kontaan naa ci lool di la nuyu aussi ci tur doxal Sénégal ak ndaw yi nga xamante ne ñoom ñëpp jiital nañ ma. may nuyu aussi militant doxal Sénégal yi fépp fu ñu nekk ci Sénégal ak ci bitim réew. fépp fu ñu nekk maa ngi leen di nuyu nuyu yi gën a tedd di leen wax nag da ngeen waajal incha allah dégg naa waa Pastef ñu ngi nemmeeku tour waaye ñun ñu ngi waajal doxantu bi ñëw ziyaare leen incha allah bu ko defee ñëpp kontaan macha allah jërëjëf Amadou Diop Carter parti euh, doxal euh, Sénégal muy njiital parti doxal Sénégal ñu di ko santaat ci disponibilité comme ma ko waxee itam euh, ko jaajëfalaat bu baax a baax a baax mbokk itam ñu amaat ak moom jotaay noo ko jàngatee di ko vraiment di ko di ko di ko ñaanal réussite tamit tamit si fii seen taxawaay bi nga xam ni am nañ ko ak yéene bi ñu am ci seen Sénégal suñu borom tam euh, jàppale leen ci bu euh, baax a baax ndax ni ma ko waxee Sénégal euh, tey koo xar doomu sénégalais boo xar rek boo xaree xolam sénégalais ki nekk bëgg Sénégal mm-hmm. kon nag yaakaar naa ni Sénégal moom ni ñu koy waxee toujours rek nañu dellu si waat jàmm muy kàddu gi nga xam ne moom la daanale fii ci jàmm ji info moo gën fii ñu jëm fii ak fañ jëm yépp jàmm fa gën kon nag yal na yàlla doo gën a doolee jàmm fii ci bi réewum Sénégal mbokk di leen santaat bu baax baax seen jotaay noo ko jàngatee la woon fii ci jàmm ji info ak ci wàllu présentation bi Mouhamadou gi woon nag Amadou Diop Carter euh, njiital parti euh, doxal euh, Sénégal ñu di ko santaat bu baax a baax mbokk di leen jox di daje ci beneen jamono ba beneen yoon. jàmm ji info waaye nag informer, éduquer et divertir dans la a jot xibaar yu jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di jàmm ji info.